mën nga ñu wax euh, feebar bi kañ la la commencé dikkal yan année la woon ak nan la la ñëwee salaamaaleykum wa rahmatullah ah, salaamaaleykum wa rahmatullah tànk bi yàgg na ci man lool ñu ngi ñëw ci man daal feebar la ma dikkee woon benn genre pali mhm. la ma dikkee woon ma jékki-jékki tànk bi commencé di xonku mel ne yaa ci sotti ndox mu tàng mhm. muy sadd di bàyyi su ma toogee di létt tànk bi néewi suma ma tànk bi arrêté mhm. ma nekkee noonu nekk na pendant deux ans boobu sama yaay mu ngi dund après sama yaay ci la nekk di ci dugg ak génn foogoon ne affaire sëriñ la daal mhm. mu nekk ci nekk ci nekk ci ba tànk bi def cinq ans sama yaay décédé mhm. génn àddina bàyyi ma ak tànk bi ma nekk ak tànk bi nekk ak tànk ba fi mu nekk nii daal am naa ak tànk bi 15 ans. Mhm. maa nge 15 ans ak tànk bi mais date bi kii année bi ma dalee moom fàtte naa ko. d'accord nga wax ni bi mu la dalee sa da doon jóg di di di di dem ci sëriñ yi. Euh, est-ce que xooloon ngeen jamono jooju hôpital yi ba xam. non non jamono jooju moom demuñu woon benn yoon hôpital. Hmm. parce que dañ nekkoon ci affaire sëriñ yi rek. di ci dugg ak génn di ci dugg ak génn presque deux ans moom def na ko ak man mais ba tey demuñu hôpital. Mm, dafa doon yàqal liggéey jamono jooju. waaw jamono jooju daf ma doon yàqal liggéey parce que su ma toogoon noonu di liggéey. Mm-hmm. tànk bi day néewi sonal ma bu guddi jotee du ma nelaw. Mm-hmm. kenn si kër gi du gëm ma bët damay fanaane yuuxu ba bët set. Mm-hmm. waaw su ma yeewoo nag mu bàyyi. Mm, léegi ban moment nga jàpp ne wo jàpp ne jot na nag ma dem hôpital xool yi ci faju hôpitaux yi ba xam lan laa ci mën a am. maman bi ma koy jàpp moom fekk na c'est trop tard. parce que maman ma koy bi néewi xamante ne kenn mënu la kaa wax mm-hmm. waaw ma amoon jëkkër bulu woon sama papaay doom yi mm-hmm. léegi bi ma amee jëkkër fan yooyu ma daal dem hôpital balaa may génn ci kër gi dem këram dama dem hôpital mm-hmm. bi ma eggee hôpital ñu ne bu ci jël grossesse parce que boo ci jëlee grossesse rek mën na la jural leneen ma defoon planning nag mais yàlla dogalul sama digganteeg moom mu neex mu jote ceeg man chaque jour jàppal bàyyi bu jeex ma dindi planning bi bi mm-hmm. ma dindee planning bi si laa ci jël grossesse bi mm-hmm. ma jëlee grossesse nag boobu la tànk bi bi ba àttanatu ma ko dama ko doon diri mm-hmm. waaw d'accord grossesse boobu mooy mooy mooy lu ndaw lii fi duggoon noonu bi ma ci jëlee grossesse boobu nag après ci la ma tànk bi sonalee ñu ne ma boo accouché ba am un mois quinze jours da ngay dugg hôpital pour ñu opérer ko waaw léegi noonu nga def waaw man hôpital la woon hôpital Fann hôpital Fann waaw maa ngi woon Fann mhm. lan nga doon defee ak fere médico yeeg yooyu noonu jamono jooju yaa ngi woon ak sa borom kër jamono jooju sama borom kër daf ma abandonné mhm. daf ma abandonné bi ma nekkee en état grossesse ba am trois mois mhm. boobu la ma abandonné bi ma abandonné am benn daam bu dëkk fii si si ginnaaw ni sorewul ci sunu koñ bi benn poste de santé bi nekk fii fa la ne léegi bi ma demee foofu ci poste de santé bi di visite mhm. ci la gis tànk bi bi gisee tànk bi mu yuuxu ne ma waa diw lan moo la def nii ma ne ko man xaw ma sax lu ma def man ma yaa ngi faju ma ne ko déedéet fajoo ma boobu moom la commencé jël téléphone am di collecté wu di woo ay nitam pour ñu jàppale ko pour nu ma fajoo mhm. léegi ci la commencé def noonu def noonu def noonu ba benn maman mu daal di woo benn télé bi nekk fii Thiès. bi mu leen woowee ñooñu ñëw filmer ma def lépp dugal ko ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. biñ ko dugalee nag ci laa commencé gis ñi may jàppale. Mm-hmm. ma commencé gis ñi may jàppale di ma jàppale. par la suite nag ci la jublan gi baree lool. Mm-hmm. ku nekk nag jóg ku nekk jóg. waaw. d'accord mais hôpital bi nga demee opération bi réussiroon na mais gisoo ci woon benn tan hôpital bi ma ko demee réussirul parce que bi ma mhm. opéré woo ba tey ci laa gën a am métit parce que dañ ma ne woon deux opération ngay suivre. Mhm. waaw première opération bi ñu ma laaj presque trois millions et quelques. Mhm. loolu yëpp ma collecté wu nit ñi baax ñi jàppale ma ba ma collecté wu ko. ma faju ci mais après nag ñu ne ma da ngay suivraat beneen opération. ah aw ma ñu ma jàppale parce que ñi ma triande dafa bari lool. Mm. façon nit bu ne gis naa leen. mais genn wàll gi yëpp ay trian lañ gisatuma kenn moo tax ma arrêté presque quatre ans ngee nii suivre ma samay traitement dama toog rek. Mm-hmm. Mm. mais mais mais est-ce que euh, kii li tax continuer woo hôpital bi wax nga ko jafe-jafe côté finance am am nga ko mm. moo tax continuer woo hôpital bi mm-hmm. mais euh, ñu dellusiwaat tuuti sa entourage. ñi nga xam ni ñoom ñoo la wër muy say mbokk yi ngi la gën a jege ak sa mbokk ci nu mu gën a yaatoo mm-hmm. est-ce que am nga eh, ñooñu jàppale nañu la comme ni mu waree man nag si sama côté mbokk mm-hmm. ma sama benn mbokk boo xamante ne day jàppale na ma gisuma sama benn mbokk boo xamante ne lii rek jàpp na ci wala dimbali na ma benn côté boobu gisuma ko. Mm-hmm. vraiment gisuma ko gisuma sama benn mbokk boo xam ne dimbali na ma. Mm-hmm. wala yërëm na ma wala jàppale na ñëpp daal dañoo croiser le bras di ma xool. Mm-hmm. ñu nekk ci réew moo xam ni euh, c'est vrai que hôpitaux yi am nañu njëriñ waaye am na yeneen gëm yoo xam ne mu ngi ci ñun muy le côté traditionnel est-ce que dem nga xooli côté yooyu. waaw dem naa xooli côté traditionnel yi dem naa foofu. dem-dem bi tamit aussi fa nga am moyen ndax foo dem dañ lay laaj xaalis waaw duñ la ko defal gratuite loolu mooy problème bi léegi euh, ba tey jëf gis nañ benn nit koo xam ne dem nga seeti ko mën nga bañ a tudd turam bu la neexee aussi bu la neexee tamit mën nga tudd turam. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw kooku moom mm-hmm. dem naa seeti ko muy Ablaye Diop xaas mu nekk nit ku baax nit ku laa biir vraiment ndax première fois ba ma njëkkee gis moom jooy sax def na ko parce que xamul woon ne. tànk dina mel yenn melokaan yi te du kenn du ci am ku ci jàpp. Mhm. wax dëggam fa yàlla. parce que jour bi ma toogee ak moom loolu la ma njëkk a wax. Mhm. ne ma nag dinaa la jàppale ba yàlla may la wér. Mhm. mais jàppale boobu it man damay déplacé wu. Mhm. di jóge Thiès di dem Dakar. Mhm. mais moyenne bu may demee chaque jour samay rendez-vous moom laa amul. Mhm. mel ni pass bi kon moom moo tax. mënuloo respecté moo tax mënuma respecté samay rendez-vous. wax dëggam fa yàlla. mais est-ce que gis nga tan ci côté côté côté boobu. ma commencé ci moom ba tey wax dëggam fa yàlla mu ngi oyof. ni daan diisee diiseetu ko. Mm-hmm. ni ma daan sonalee par guddi moom wax dëggam fa yàlla defatu ko mu ngi am tan moom. Mm-hmm. bi nga demee hôpital est-ce que joxoon nañ la benn tour ne la moo tour ne feebar bi moo la dal. waaw bi ma demee hôpital dañ ma ne éléphantiasis la. éléphantiasis d'accord est-ce que am nga di nga renseigné wu ci feebar boobu xam nan lay dikkee xam lan mooy njeexital beeg yooyu noonu. njeexital bi moom xaw ma ko. xam naa mm-hmm. daal ni muy dikkee moom. metti na lool. Mm-hmm. metti na lool du febaru baadoo la mm-hmm. wa du febaru baadoo la febar bi dafa laaj moyen mm-hmm. parce que bo duggé hôpital sa dañ la kay wax dañ na la il faut nga am moyen deug mo la ci génnee wa parce que bima mujjé mujjee faju bi may mujjee génn hôpital ma jox samay këy ba signal ma ko ne ma boo amee ku la yóbbu Europe nga dem Europe faju ji. nga faju ji mais depuis boobu maa ngi toog presque quatre ans aw ma kenn ku ma ci. ana kayit yooyu ñu ngi yow yooyu ñu ngi ak man. est-ce que dem nga xooli ci côté organisation yi comme lu mel ni fondation Servir le Sénégal nga xam ni première dame moo ko jiite yu mel noonu. fondation Marème Faye Sall dem naa fa. Mhm. bu fekkee ne day seetaan lii bu ko seetaanee dina xam ne ñëw naa fa. Mhm. mais keroog bi ma fa demee ak ndimbalam ak yërmandeem jàppale na ma lu bari mais ñi ci sama ginnaaw ñoo lekk lépp. Hmm. loolu laa dëgg la waaw ci sama ginnaaw. Hmm. ñoo lekk lépp. mais hmm. dem naa fa mais euh, promettre ma woon pour yóbbu ma Europe. mais jàppale woon na ma pour ma faju d' accord euh, suñu la déggee mu mel ni yow. ñi nga xam ne ñoo la gën a jege di say mbokk daanaka jàppale wuñu la ni ñu la war a jàppale mënuñ ko waxee noonu ndax mu xëy na mën na ñaaw mais Euh, am na ñeneen ñoo xam ne jógoon nañu pour boole la ak ay nit ñu jàppale la waaye à chaque fois bu génnee xaalis dafa mel ni ñoom ñoo ciy gën a jëriñu. wallaay la Azim de képp ku ma yóbbu ci nit. Mhm. soxlaam moo tax mu yóbbu ma. Mhm. su ma neexee tey ma ne sama tànk bi bu doon tabaski la ñëpp tabaski nañ ci. parce que ñi nga xamante ni daan nañ ñëw ci man. Mhm. li leen daan andi yëpp mooy seen intérêt. waaw lu ci ëpp loolu moo leen fi daan andi. waaw. sa doom ji nga mujjee am ak sa sa borom kër googu nga wax ne def la abonné abandonné ñaata at la ci lay toll. am na 4 ans. Mhm. Mhm. am na 4 ans fi mu mu mel ni danga am njaboot parce que wax nga léegi ni am nga juróomi doom yu góor. Mhm. Eh, ñooñu noonu ci yan âge la ñu toll ci lan lan la ñuy yëngu. kenn ki ci lan nga bëgg nit ñi jàppale la ci ñoom ba ñu mën a taxaw seen yaay. ki sama taaw bi moo doog a am vingt ans nii. Mhm. waaw mais ki topp ci moom am na quinze ans sama taaw bi nag tëyër lay def day jàng rek mokkalagul parce que dafa bàyyi njàngam ak cause de sama tànk bi. Mhm. doon dawal mhm. wutiir parce que jamono jooju métti woon na lool ci sama côté. parce que tànk bi bi ma dalee rek la ma sama famille yëpp woon ginnaaw. bàyyi ma ak sama bopp bàyyi ma ak samay njaboot. sama jëkkër ji ma njëkk am tamit dafa ma abandonné ak xale yi. Um, boobu la ma tànk bi di doog a daaneel mais sama taabu góor boobu dafa bàyyi lépp lu mu doon def école am bi da koo sànni fële ne ma yaay mënatuñoo dund lii mm-hmm. damay dem dawale watiir ci watiir yi la nekkoon ba mm-hmm. finalement ma génnee ko ci mu dem di defi téyeer mm-hmm. waaw d'accord euh, kon yow tamit euh, ci côté traditionnel c'est vrai am na benn nit koo xam ni euh, jàppandi ngeen mu ngi mu mu ngi ci def li mu mën mais est-ce que dem nga aussi xool yi ci nu mu gën a yaatoo ci ay ñeneen yeneen nit wala ci kooku rek nga yem wallaay Azim dew ma parce que li ma la wax rek ci njëlbeen moyen bi moom mooy sama problème. Mm-hmm. aw ma ku ma jàppale pour may def transport dem dikk. Mm-hmm. aw ma ko. parce que mm-hmm. balaa may xëy lijjantil samay doom lu ñu lekk sax problème la. yéen bi ngeen may woo mu ngi fekk man ma génn. dem di lijjantil lu ma jox samay njaboot. Euh, ministère de la santé ak de l'action sociale bu Sénégal dafa am benn service boo xam ne spécialement. ci dafay sàmm dafay topp li nga xam ne moom mooy MTN MTN mooy maladie tropicale négligée muy eh, lii la dal di éléphantiasis euh, ci la bokk ndax xamoon nga loolu. déedéet mosuma koo xam. est-ce que dem nga ci ñoom pour pour seeti leen. déedéet ma sax yoon bi ma war a jaar. Uh-huh. Mm-hmm. parce que parce que ñoom dañuy répertorier ñi nga xam ni ñoom ñoo am feebar yi souvent di leen topp di leen di leen di leen di leen topp ndax euh, yow pare woon pare nga pour dem seeti leen. ñu jàppale la. waaw ah, pare pour dem seeti leen ñu jàppale ma jàppale ma aussi ci samay njaboot. Mhm. waaw parce que sama beneen doom bu góor bi 15 ans la am te maçon lay def. Mhm. xale la moom aussi bàyyi na njàngam parce que amatuma moyen bu ma ko inscrire dafa mujjee bàyyi njàngam dem di defi maçonnerie. Mhm. fi mu nekk nii sama ñaari doom rek ñoo nekk ci école bi te liñ nekk ci école bi ñu ngi ci loxo yàlla kenn ki sem 2 lay def kenn ki CP lay def. waaw. d'accord est-ce que am nga benn message boo xam ne bëgg nga ko lancer. nga wax ko de vive voix nga wax ko ak mu joge ci sa xol pour ñi nga xam ni mën nañu la jàppale ci sa côté wér yaram ak ñi nga xam ne mën nañu jàppale ci sa njaboot aussi parce que il faut nga am possibilité am benn mobilité moyen financier pour mën di dem fi nga war a dem di di ñëw aussi. message bi may lancé de lancé wu ma ko ci kenn lu dul ci Marème fay Sall ak borom këram Macky Sall. Mhm. ñoom ñaar daal lay woo ci kattanu yàlla ak dem ñu jàppale ma. te yàlla rek a tax jàppale ma ci samay côté njaboot nag parce que sonn naa mm-hmm. jàppale ma aussi ci sama jàngoro parce que sonn naa maa yore sama njël yore sama jàngoro mm-hmm. maay demal sama bopp lépp maa koy lijjantil sama bopp fi ma toog damay jóg di lijjantil sama bopp parce que aw ma ku ma jàppale mm-hmm. waaw am na loo ci dolli li ma ciy dolli mooy ñoom rek laay woo bu ñu déggee sama voix daal ñu xam ne am na ku leen soxlawaat bu baax a baax a baax donte Marème Faye Sall defoon na ci woowaan naa ko Mm. bëgg naa xam aussi ndax naroon naa ko fàtte sa liggéey euh, fan la toll ndax euh, tànk bi dina metti lool nga boole ko ak liggéey ndax yaa continuer sa liggéey wala. si maa ngi koy continuer parce que su ma ko continuer wu duma am lu ma yoree sama njaboot. Mm-hmm. waaw ñii nag dañuy ñëw ci man ñii dañ may mujj dañ maa mujj seexlu ñëwatuñ ci man. Mm-hmm. mais ñi nga xam ne am nañ yërmande te yéene ma seen alal mm-hmm. dañuy ñëw ci man. mu ñëwee ci man ma defaral leen. waaw ci loolu may fartaatu nag ki laa yoree samay njaboot. Mm-hmm. waaw mais da donte du chaque jour mais mm-hmm. yàlla moom may ñi nga xam ne ni am nañ sama yërmande ñu ñëw ci man mm-hmm. bi ñuy waxtaan léegi te nga ni da ngay da ngay jël ci say matériel di jaay pour faj sa bopp est que mën nga ñëwaat ci loolu waaw parce que li tax ma jël sama matériel jaay parce que ñi ma doon dimbali gisatuma ci kenn ñi ma doon jàppale gisatuma ci kenn dañ ma doon dimbali nag wax dëggam fa yàlla mais ndimbal bi daawul jaar ci samay loxo direct. dafa mhm. am ci loxo yoo xam ne fa la daan jaar doog a ñëw ci man. Mhm. mais bi ma demee ba nga xam ne ñooñu ñi ma doon jàppale dañ ma mujjee woon ginnaaw ñooñu ñëpp dañ ma bàyyi woon ma ginnaaw kenn si ñoom sax tegatu fi tànkam xam ci lu ma ne. Mhm. man nag finalement amatuma moyen dama génnee li ma bi may njëkk a jógaat pour delluwaat hôpital Fann bi ma demee laa expliqué docteur Ndiaye ma ma doon suivre jolo mm-hmm. mm-hmm. ma expliqué ko sama situation boobu dama génnee sama lal moo tax ma teg sama malaani ci suuf jaay sama lal bi bi ma gisaatee Ablaye Diop xaas aussi dama génnee sama armoil jaay ko pour dem faju jiwaat mm-hmm. waaw d'accord ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw ah, maa leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla wóor ubbi ci bunt amiin ba nga mën a faju ba wër. allahumma amiin yal na yàlla fay yow. jërëjëf yal na yàlla fay taxawaay bi. ñëw gi yal na leen ko yàlla fay. amiin yàlla yàggal seen taxawaay. leeral seen baat. musal leen ci seytaane ak musiba ak balaa. yàlla taxawu leen ba ngeen àgg fi ngeen bëgg a àgg. amiin ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu